conseil sénégalais des chargeurs COSEC moo leen di may seen revue de presse dali na jàmm ñu ànd xëy yër yéen kaay ñu xëyando yéen kaay gi di réew mi quotidien xëy séq waxtaan wu yaatu ak jàngkatu xasida bii di Serigne Modou Galas Mbaye wax na ni mu jaare ci daare Serigne Sali wax na ci xasida yi wax na ci coronavirus ak ñoom jàngkat yi nan la ñu ko dunde wax na ci màggalu Tuuba gii nga xam ne dafa tombe ak coronavirus moom jàngkatu xasida bi di Serigne Modou Galas Mbaye daat nay wax ne li nga xamante ni moom la Serigne bi wax ngir nañoo wàccoo ak mooma moom jàngkatu xasida bi nee na ren nag danañu màggal màggal gu neex li si des mooy takk jóg fa séene màggali te nag wàccoo ak mesure barrières yi moom Serigne Modou Gallas Mbaye ci réew mi quotidien daan nay wax ne amul benn kuccee maanaam benn rivalité boo xam ne am na ci diggante jàngkat yi wax na ci digganteem ak président ba ñu jópp maanaam seen relation daan nay wax ne njiitul MEDES lépp looy xool ci nit ku baax ma ngi ci moom nit ku dal te lu bare bari jànge naa ko ci moom yéen a kaay gii di xëy di ñu xamalal ñu Souleymane Teliko niki démb ma woon ci kanam kanamu conseil supérieur de la magistrature ci conseil de discipline loole nag daan nay tax ñu bare bari daal di fippu jóg di ko tiil tànk maanaam di ko jàppale ndax am na ñu bari ñoo xam ne maanaam ñaawlu nañu ñaawlu nañu lool lool lool Souleymane ko mi nga xam ne jamono ji moom la ñuy xoqutaal Ligue sénégalaise des droits de l'homme ñoom daat nañu koy ñaawlu Amnesty International section Sénégal daat nañu koy ñaawlu waa RADDHO daat nañu koy ñaawlu Forum Civil daat nañu koy ñaawlu Synpics daat nañu koy ñaawlu ñoom ñëpp nee nañu Souleymane Téliko jamono ji dañu ko a xoqutaal la enquête yéen a kaay ne en tout cas li am ba des daal mooy magistrat yi mer nañ magistrat jamono ji mer nañu ba maara de taali nee nañ nag maanaam danañu dem ci guerre pare nañ ngir xeex ak maître Malick Sall ndax ñoom nee nañu lii du ñu ko nangu tey du ñu ko nangu la xeex bi danañu ko jëlal seen bopp maanaam xeex ko mën a saaye ba ñu ñu si nopp bu ñu saañum ngeera magistrat yi mer nañ lool lool lool maître Malick Sall jamono ji nag la ñuy sàkku maanaam ñu tekki ndombal tànkam ndax ñoom nee nañu maître Malick Sall dafa yàq li nga xam ne mooy justice bi te ñoo ngi sàkku ñu daal di dakkal dakkal woolu gi nga xam ne ñoo ngi koy woolu Souleymane Téliko ci ni mu gën a gaawee kuréel gi ëmb magistrat yu Sénégal ñoom nee nañu danañu woote ab assemblée générale extraordinaire ginnaaw loolu sax nee nañu seen membre yi nga xam ne ñoo nekk ci conseil supérieur de la magistrature nañu dakkal mboolem activités yi nga xam ne ñoo ngi ko si doon amal maître El Hadj Diouf nee na du yoon nee du yoon du dëgg lii nga xamante ni moom la ñuy def Souleymane Téliko maître Siré Kélédor li bokk si ñi nga xamante ni ñooy layel Souleymane Téliko nee na Souleymane Téliko amul lenn loo xamante ni def na ko lu tax ñu koy woolu dañu ko bëgg koo néewal doole te loole nag maanaam du ñu ko seetaan combat bi moom danañu ko combat Birahim Seck bu Forum Civil nee na nag maanaam néewal doole gi nga xam ne moom la ñu néewal doole Souleymane Teliko ak justice bi loolee la ñu bëgg mu dakk en tout cas société civile bi ak ñoom Y'en a marre jóg nañ ngir jàppale Souleymane Teliko Mansour Faye gorom ji turéew mi di Macky Sall démb doon na janoo ak taskatu xabaar yi nee na nag jamono ji bu dee of nag woolu na ko te si sañ-sañ dina wuy ji ngir leeral moom Mansour Faye ci janoo xabaar yi daan nay wax ne audience bi nga xamante ne Ousmane Sonko ñëwoon na di ko sàkku ci mën a ngir ab médiation digganteem ak Macky Sall lu am la 2014 la rue Parchap moom Mansour Faye daan nay wax ne am na benn audio benn audio boo xam ne dafay dëggal di firndeel audience bi nga xamante ni Ousmane Sonko doon na ko sàkku te nag Ousmane Sonko bu na prép rek ma fësal li nga xam ne maanaam mooy audio bi yéen a kaay gi nee na Ousmane Sonko démb daan nay génn nee na prip jamono ji Mansour Faye moo ko tere neex Ousmane Sonko nee na ko publier la afficher la divulguer la partager la fësalal siiwalal Euh, yéen a kaay gi di Vox Populi mu ñu xamal laan ñu témoin bi nga xamante ni Mansour Faye doon na ko wax démb magistrat boobee nee nañu Cheikh Issa Sall la tudd waaye nag Mansour Faye dina envoyé ab huissier ci Ousmane Sonko mu firndeel dëggal autorisation ngir mu mën a fësal li nga xamante ni mooy yooyu le kàddu Dakar Times ñëw ci Idrissa Seck mi nga xam ne jamono ji nga xam ne conseil constitutionnel daan nay wax ne Macky Sall gagné na li nga xam ne mooy élection yi jamono jooje nag la Idrissa Seck retiré daal di toog ci ab ruqam na nag ay sénégalais yoo xam ne ak i taskatu xabaar mënuñoo comprendre noppi gi nga xam ne Idrissa Seck noppi na ko am na sax ñoo xamante ni dem nañu bay wax ne Idrissa Seck dafay deal ak Macky Sall waaye nag bu ñu waxantee dëgg est-ce que débat politique bi jamono ji homme d'état bu mel ne Idrissa Seck war naa jóg di ci piicoo ak di ci mbaloo loolee ab laaj la ginnaaw Sénégal yi tànnuñu ko est-ce que Idrissa Seck nag amul sañ-sañ daal di toog ci ab ruqam ki nga xam ne moom la Sénégal yi tànn di Macky Sall mu daal di doxala wala nag Sénégal dañoo bëgg jamono ju nekk ñu def ko ab a kaay gii la niki démb dajati na loo xam ne mburu daju ko ci ab puur ndax dafa bëggoon a gis Serigne Cheikh Saliou mi nga xam ne mooy xalifa Serigne Saliou waaye lu toll ci juróomi waxtu yoo xam ne Aïda Diallo yor na ab maletam waaye munul fexe ba gis Serigne Cheikh Saliou yéen a kaay gii di 24 heures dikk na si Sahara Iyane Thiam mi nga xam ne moom la ñu dénk wàllu microfinance ginnaaw nag communiqué bi nga xam ne génne woon na ko wax ne képp koo xamante ni dem nga Touba boo ñëwee dañu lay quatorzaine maanaam dañu lay ber lu toll ci fukki fan ak ñeent tax na murid yu bari daal koy songo daw na deuxième maa waxoon waxeet nee na génn na sa ba set ci wecc yéen a gi di réew mi quotidien xëy génn ñu réew mi yóbbu ñu république démocratique bu Congo foofe nag dafa am ay agent UNICEF yoo xam ne dañu leen tuumaal ne dañoo yegg si ay jigéen doon siim ak ñoom seen marangaañ loole nag tax na ONU daal di koy ñaawlu ba fa ñaawlu yam ba pare fas yéene si ubbi ab enquête yéen a kaay gi di Stades nee na Sadio Mané dafa amee coronavirus mat sa xaritoo bi war a dox diggante Sénégal ak Maroc ak Mauritanie Sadio Mané du sa bokk Stades yéen a kaay nee na ci week-end bi match yu tàng mooy am diggante Juventus ak Naples